alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñu ngi sant sunu borom cant gi nga xam ni moom la yellool ñoo ngi koy sant di sàkk ci moom ndimbal euh, di ko mu jéggal ñu suñu bakaar te musal ñu suñu bon bonu bakkan ku yàlla jubal kookee mooy ku jub ku yàlla réeral ci maanu teem kooku mooy ki sànk ñoo ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku moom borom bi subhaanahu wa taala di julli ci yonent yàlla Muhammad ci di ko ñaanal jàmm xéewal mucc moom ak ay saxaabaam ak képp ku topp yoonam ba kër bés penc gannaaw loolu mbokk yi ñu leen di dénk di dénk suñu bopp ragal borom bi subhaanahu wa taala ci jëfe ay digleem waaye bàyyi ay tereem fan yi ñu nekk ay fan la yoo xam ni ñi nga xam ne ñi ngi war a aji màkka ñi ngi préparé pour dem aji néegu yàlla bële nekk ca màkka jublu ci joxe li nga xam ne mooy faratay faratay aj màkka ni ñu ko xam ne aj màkka ponk bu màgg la ci ponk yàlla subhanahu wa taala moo ko faratal ci bépp jullit boo xam ne mën na ko loolu mooy charte bi bépp jullit boo xam ne mën na ko ki ko mënul wàcc na ko boroom bi mu ne nekkal na doomu aadama yi ñu daal di aj néegu yàlla di ci képp koo xam ne mën na ko benn yoon ci dundam yàlla mu ne képp koo xam ne nag mën na ko ba pare daal di féttéerlu daa di weddi bañ koo gëm bañ koo jëfe bañ ko def te mën ko yàlla moom doyloo na boppam soxlawul li nga xam ne moom mooy ay mbindaa foonam mbokk keroog bi Ibrahim taxawee daal di samp li nga xam ne moom mooy kemu néeg boobu di kaaba gi yàlla daal di koy digal mu daal di woote daal di yëgle nit ñi nañu wuy si yàlla ci néeg bi te joxe fi li nga xam ne mooy jaamu yàlla googu jëppi jamono jooje ba jamono ji ñu taxaw di wax doomu aadama yi mosuñu dañ di aj ci li nga xam ne mooy néegu yàlla boobu te aj màkka du dog mukk du taxaw mukk fii ak ci kaw suuf am na fi jullit boo xam ne gëm na yàlla mi ngi fi ruwaam ruwaam des fi muy dund aj màkka du du jeex waaye saa bu demee ba ñi gëm yàlla borom bi jëlee leen fi comme ni mu ñëwee ci ay xadis ñi gëm yàlla euh, laata yàlla taxawal bés penc da leen di faat ñoom ñu dem mu des ci kaw suuf gaa yi nga xam ni ñoo yées ci lu yàlla sàkk ci doomu aadama ñoo fiy des muy shiraarul xalq su ko defee su boobaa aj màkka ci lay ci lay def ci lay ci lay jeex dootul am te loolu am na luy ñëw ci kanam dana ko leeral mbokk yi aj màkka am na ay ngëneel yu ngëneel yoo xam ne yu wute yu fasanti bokk na ca ci jëf yi gën yi ñuy defal yàlla ci la bokk moom ay màkk jaamu yàlla yi gën a mën a jegel jaam bi boromam ci la bokk yonent bi alayhi salatu wasalaam ci xadis bi abu hurayra nettali nee na dañ laaj yonent bi ne ko jëf yi ban jëfa ci gën mu ne gëm yàlla ak yonentam parce que looy jëf gëmoo yàlla ak yonentam jëf jëmanta baax kon gëm yàlla ak yonentam ñooy la lépp da ngay gëm yàlla yonent bi di door a jëf muy baax moo tax mu ne gëm yàlla ak yonent bi ñu ne ko après loolu gannaaw lu ci tege mu ne xeex ci yoonu yàlla xeex ci yoonu yàlla respecté charte ya ak ponk ya ñu ne ko gannaaw loolu lan mu ne aj gu yàlla nangu aj gu yàlla nangu daf ko tënk ne xajjun mabruur kon nit ki mën naa aj te yàlla nanguwul ajam waaye aj gi ñuy wax mooy aj gu yàlla nangu aj gu yàlla nangu am nay condition xadis boobu Buxaari Muslim ñoo ko solo ak ñeneen ñaareel bi aj màkk mën naa taxawee palaasu xeex ci yoonu yàlla palaasu jihaad ci ki nga xam ni euh, mënu ko taxawee loola mën na ko caa wut te Aïcha radiyallahu anha nee na jigéen ñi dañ laaj yonent bi alayhi salaatu ne ko yonent yàlla bi dañoo gis ne xeex ci yoonu yàlla ci jëf yi gën a màgg ci la bokk waa ñun jigéen ñi ndax duñ ñëw dugg ci xare bi xeex mu ne yéen déedéet waaye jihaad bi gën xeex bi gën mooy aj màkka gu yàlla nangu afdalul jihaad xajjun mabruur xadis boobu Buxaari solo na ko ci kitaabul xaj ci beneen riwaaya daf ko ni waa ndax duñu xeex ànd ak yéen mu ne ko déedéet waaye jihaad bi gën te gën a rafet ci yéen mooy aj aj màkka aj màkka gu yàlla nangu mbokk yi euh, loolu day wane kon ngëneelam gi nga xam ne aj màkka am na ko ñetteel bi mooy aj màkka gu yàlla nangu dara amul payam lu dul dugg ajana aj màkka gu yàlla nangu payam mooy dugg ajana ko nit ki war naa sonn ci yàlla subhaanahu wa nangu aj màkka mu bañ a dem rek ñibbisi naan ko ajratu wala alaaji te tur rek la ciy am waaye jëmmalul dëgg-dëgg aj màkka yonente bi alayhi salaam euh, wone na ni aj màkka gu yàlla nangu payam mooy ajjana abu hurayra nee na yonent bi alayhi salatu salaam nee na diggante umra ba umra jaam bi su umra way ba keroog muy umra waat dañ koy fompal ay bàkkaaram nee na aj màkka gu yàlla nangu dara dara doonul ak payam lu dul dugg ajjana xadis ba muttafaqun alayhi la bi waxaat ci beneen mbir wone ne aj màkka gu yàlla nangu sabab pour yàlla fompal la say bàkkaar jéggal la ko abu hurayra radiyallahu anhu mu bi alayhi salaam nee na ku aj néegu yàlla bii te caaxaanul jëful jëfu kàccoor fawul nee na bu delloo day dellu mel ni kuy door a judd mel ni koo xam ne yaayam da koy door a wasin kuy door a judd day set ci ay bàkkaar yonent bi alei mu ne su delloo noonu lay def ku nit ki war naa jàng aj màkka gii tax su delloo mel ni kuy door a judduwaat bokk na ci ci riwaaye muslim dane ku ñëw ci néeg bii ku fi dikk jooxe fi aj màkka nee caaxaanul fawut nee day dellu mel ni kuy door a judd ci riwaaye tirmisi yi dane ku ñëw ci néeg bi joxe fi aj màkka te caaxaanul fooyewul aj màkkaam aj màkka gu jaar yoon gu a jàngale moom la def nee na yàlla jéggal ko ay bàkkaaram ju jiitu maa taqaddam min danbihi gufira lahu maa taqaddam min danbihi boobu mooy riwaaya Tirmisi yi xadis bu wér la juróomeel ba mooy bëril looy aj màkka fekk mën nga ko ki ko mën ki mën aj màkka di bëri li muy aj màkka ki mën umra bëri li muy umra yonente bi alayhi salaatu salaam nee na kooku day dàq ak ci kooka dàq ci moom ak faqr euh, ñëw na ci xadisu ibni mas'ud ak abu sa'id yonent bi alayhi salatu wasallam mu ne taabi'u bayna al-hajj wal umra dee leen toppalante aj màkka ak umra ki ko mën bu ajee te mën a aji waat na aji su umra yooyu mën a umra ji waat na umra ji mu ne fa inna al-mutaabaata baynahuma tanfi al-faqr di toppalante diggante umra ak umra wala diggante aj màkka ak aj day dàq ak ñàkk ne day dàq ak ñàkk comme ni nga xamee ni euh, xomaat gu nekkoon ci weñ ñu tàngal weñ gi na muy dëñee na mu koy na ko na ko tàngal ga di dëñee dindee nee na noonu la euh, aj màkka guñ toppalante ak umra guñ toppalante noonu lay dindee li nga xam ni moom mooy euh, ñàkk ga bokk na ci mooy kii aji màkka ganug yàlla la kii aji màkka ganu yàlla subhaanahu wa taala la te ku gane ji yàlla yàlla teral la bu fekkee ngane gi jaar nga ko fi nga ko war a jaar omar radiallahu anhu nee na yonente bi alayhi salatu salaam nee na kii xeex ci yoonu yàlla ak ki nga xam ne dafay aji ak ki nga xam ne dafay omra ji ñoom ay ganu yàlla lañ nee na suñu ñaanee yàlla mu nangu parce que ay ganam lañ luñ ko laajit yàlla jox leen mu ñëw ci beneen riwaaya <coughs> bu Ibn Maaja mu ne kat yi ak omrakat yi ay ganu yàlla lañ ay ganu yàlla lañ bu ñu ñaanee yàlla mu jox leen buñ sàkkoo njëggal am njëggal borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi aj màkk farata guy guy wéy la même fitna yu mag yi buy génn ci kaw suuf nga xam ne ñooy tukkal aduna lu tax aj Màkka taxaw fitna yi day am aj Màkka di am yonent bi alayhi salaatu salaam nee na giñ naa ci yàlla ne dinañ continuer di aj yàlla bii dinañ continuer di ko aj même bu Yaajuuja ak Maajuuja sax génne te Yaajuuja ak Maajuuja ci fukki mandarga yi gën a mag ci alaamaatu saa al kubra yi nga xam ne mooy al ashara yu mag yi ñoom ci lañ bokk Yaajuuja ak Maajuuja nga xam ne seenu dikk dafa lënkaloo ak dikku ki nga xam ni mooy masifu dajjal dafa moom mooy mahdi yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne même ñoom bu ñu feeñee dañuy continuer di aj Màkka dañuy continuer di nekk li nga xam ne dañuy omra néegu yàlla bi euh, bu yàlla jëlee nag bakkanu ñi yàlla ni ñu ko waxee woon su boobaa mu des ci kaw suuf ñu yées su ko defee aj màkka ci lay ci lay ci lay jeex yonente bi alayhi salatu salaam nee na euh, balaa bés bañ ca taxaw balaa bés bañ ca taxaw daañ bàyyi aj màkk aj màkk day taxaw fan lay taxawee mooy ñi yàlla bu ñu faatoo ngelaw loolu yàlla di yoon yónni mu doon ngelaw lu sedd ñëw faat leen ci deewin goo xam ne deegu gu yomb la du métti ñooñu daal di dem su ko defee jullit dooru des ci kaw suuf ñu bon rek a fi des ay mbonte ñooy commencé am mbonte yu jéggi dayo yonent bi alayhi salatu salaam mu ne aj màkka jamono jooju lay jeex loolu moo tax mu war ci jullit bi nga xam ni am na moyen aji màkka mu bañ ko yeexal ndaxte kat tële mën naa ñëw yonent bi alayhi salatu salaam nee na man araada al xajja man araada al xajja fal yataajjal ki bëgg aji na gaawantu lu tax mu taalil ko mu ne parce que feebar mën na gaar waaye alal gi mën na sànku waaye ay aajo mën na taxaw ay aajo mën na taxaw ba dootoo aji màkk mbokk yi am na it ay mbir yoo xam ne sharia wutal na ko waa ji nga xam ne amul moyen aji màkka am na jëf yu muy def am tuyaaba ku aji màkka loolu dafa bokk ci yomb sharia ak mbaaxu sharia ak jagleel goo xam ni da koy sóoraale jaam bi ci situation bu nekk mu mën a gis boppam yonent bi alayhi salaatu salaam mu ni <coughs> képp koo xam ne julli na fajar ci mbooloo bokk julli fajar ci mbooloo lu am solo la mu ne ku julli fajar ci mbooloo man sallal fajar fi jamaa suma qaada yazkurullah mu toog di tudd yàlla hatta tadlu ashams ba jant bi fenk suma salla ni mu jóg julli ñaari rakka mu ne kaar lahu ka ajri xajj xajjatin day waajooju jëf ji mu def tolloo naag tuyaabay ku aj màkk mu ne wala tolloo naag tuyaaba it ku umra umra gu mat sëkk gu mat sëkk gu mat sëkk wala aj màkk gu mat sëkk gu mat sëkk sëkk loolu kon ki nga xam ni yàlla mayu ko occasion mu aj màkka wutal na ko jëf ji muy def am tuyaaba ku aj màkk loolu ci mbaaxu sharia la mbokki aj màkka am na ay njëriñ yu màgg yoo xam ne dañ ci teg suñu bët ak ay njëriñ yoo xam ne sax nag gisuñu ko waaye ay njëriñ la yoo xam ne lekk léeg mën nañ ko yëg bokk na ca ya ca gën ya ca jiitu ca njëriñ ya mooy màggal bërëb bu yàlla màggal parce que léeg-léeg nit ñi màggal loo xam ne ñoo ko màggal ñoom ci seeni bopp waaye yàlla màggalu ko yonent bi màggalu ko waaye ngay màggal loo xam ne da ngay yëg ne yàllaa ko màggal loolu dafa rëy ci ab julit te yàlla moo màggal jaamu yàlla gi kon ngay màggal lu yàlla màggal ba pare di màggalaale yàlla ci biir jaamu yàlla googu parce que dafa bokk ci liy màndargaal borom bi subhaanahu wa taala yàlla mu ni néeg bi nga xam ni moom la njëkk a tegal jaami ci kaw suuf mooy ba nekk màkka waaye dafa nekk loo xam ne ñun yàlla ñoo fa sotti barke sotti fa njub ñeel mboolem doomu aadama yi ay aaya ay firnde yu màgg ñu nga fa bokk na ca maqaamu Ibrahim muy place bi nga xam ni euh, dañu wax ni Ibrahim fa la taxawoon ñu tuddee ko maqaamu Ibrahim nga xam nit ki bu defee di muy def lépp def tawaafam ba pare fa lay ñëw julli ñaari rakka ñaan soxlaam door a daw safa ak marwa yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi subhanahu mu ne képp ku fa dugg moom néeg boobu néegu yàlla ba képp ku fa dugg day nekk ci sécurité mu ne yàlla waral na ci doomu aadama yi ñi daal di aj néeg boobu benn yoon ci képp koo xam ne mën na ko borom bi dellu waxaat képp ku màggal mandarga yàlla yi nee na loolu day wane ak ragal yàlla bu nekk ci xolu kooku wa man yu'azzim sha'irallah fa innaha min taqwal qulub ñaareelu njëriñ mooy day matal aj màkka day matal ak bennoo ci jullit ñi day matal ak miinante parce que aj màkka soo ko demee di nga miin ñoom miinu toon di nga miinanteeg ñoom tànt yi ngeen di nekk place yi ngeen di nekk tawaaf gi ngeen ànd di ko def safaak marwa gi ngeen ànd di ko def ànd sànd ji jamra yooyu dafa am lu bëri bëri lu muy def nit ki nga nekk ak moom ci jamono jooju ak ci bërëb yu tedd yooyu bërëb yu sell yooyu nga xam ko mu xam la ngeen bokk defandoo yooyu kooku day nekk loo xam ne dafa am lu muy lu muy def seen diggante dafa relation bu muy dëgëral seen diggante même bu aj maaka gi jàllee ngeen ko ne nekk dafa am loo xam ni ay ay bànneex yoo xam ne ngeen di bokk di ko fàttaliku waaye ay ay ay moment yoo xam ne yu foor la ci diggante ñaari jullit yoo xam ni loolu rek moo leen fa dajale. Euh, kon jullit ñi ci seen làmmiñ yi wute nga fekk fa ay langues yu wute ay couleurs yi wute ay réew yu wute ñoom ñëpp lenn indi leen mooy néegu yàlla bi ñoom ñëpp lenn indi leen muy aj maaka benn borom indi leen benn borom moo leen tax a jóg benn jaamu yàlla benn néeg benn jubluwaay bokk benn kàddu gu ñuy wax bokk benn kàdd gu ñuy wax. loolu dafay jëmmal wax dëgg yàlla li nga xam ne moom mooy mbooloo jullit yi waaye dafay jëmmalit li nga xam ne mooy jëmmi aj maaka gi ci boppam su ko defee ñoom ñëpp dafay mel ni dañoo nekk euh, seen xol yi day mel ni benn xol la ba mel ni euh, dañoo nekk ci xolu benn waay te loolu dafa bokk ci li nga xam ni lislaam da ko bëgg mooy jullit ñi ànd ba seen xol mel ni benn yonente bi alayhi wax ni misaalu jullit ñi seen bëggante ak seenu cofeel dafa war a mel ni benn yaram boo xam ni su fekkee am na benn membre bu ciy métti loolu dafay répercuté wu dafay feeñ ci mbooleem yaram bi daf koy yëg mbooleem yaram bi daf koy yëg mbokk yi loolu aj màkka daf koy daf koy firndeel daf koy jëmmal bu baax a baax bokk na ca mooy roy roy ak topp li nga xam ne mooy tànki suñu maam Ibrahim ca woote ba mu woote woon ak doomam Ismaïl yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw feddaliwaat loola fàttaliku fàttaliku taxawaay yooyu Ibrahim amoon ak Ibrahim ak Ismaïl ci borob booba fàttaliku yonent bi alayhi salaatu salaam jaar jaaram ci Makka borom bi mu ni fàttaliku leen Ibrahim ak Ismaïl jamono bi nga xamee ni ñoom ñaar ñi ngi yëkkati. ñi ngi yëkkati pays di taxawal di samp fondement wu néeg boobu di kaaba gi di ci teg naan yow suñu boroom yow yaay suñu boroom kon nag ñu nangul jëf di ñuy jëf yaay aji dégg yaay aji gis yow yàlla nag ñu may njaboot goo xam ne gu julite la ginnaaw bi ñu defee ñaar ñoo xam ne jébbal nañ la suñu bopp nga may njaboot goo xam ne njaboot gu jullite la te nga nangul ñu li nga xam ne mooy suñu jaamu yàlla nga nangul ñu li nga xam ne moom mooy suñu tuub yow yaay ko bëri yermaande yàlla njaboot gi nar a génn fii na nga yónni ci ñoom ab yonant boo xam ni ci ñoom lay bokk ñëw di jàng ci ñoom say aaya di leen jox xam-xam di leen jox li nga xam ne mooy sa téere mooy xam-xam ak loo xam ni euh, njàngale mu koo ci moom la waaye di leen laabal yow yaay ki tedd yonente bi alayhi salaatu salaam ci aj gi nga xam ni moom rek la aj muy xajatul widaa ajul beneen aj yonente bi alayhi salaatu salaam daf caa waxoon ne ci saxaaba yi ci biir aj gi na ngeen taxaw fi ngeen war a taxaw mandarga gu ñu leen taxawloo da ngeen fa taxaw parce que da ngeen di roy ki nga xam ne mooy seen baay Ibrahim yonente bi alayhi salaatu salaam dellu waxaat ni jël leen ci man seenu aj màkka ndax amaana at gii di ñëw du ma fi du ma fi dajeeg yéen maanaam du ma fi fekk ñeenteel ba mooy aj màkka dafay jëmmal tawxid maanaam wéetal yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ni moo tax yàlla yónni yonent yi wàccee téere yi sàkk jaam yi dafay feeñ ci aj màkk day feeñ ci wax yi day feeñ ci jëf yi looloon nit loolu dafa waroon tàgg nit ki ba bu jógee ci aj màkka tawxid googa mu tàmmoon ci làmmiñam tàmm ko ci ay ay ay jëfam loolu dafa waroon continuer warutoon dog nit ki buy aj màkka gannaaw bu mu armalee ba yéene aj màkk gi mu war a def foofa lay tàmbalee di talbiya ba keroog aj màkk gi di jeex kàddu gi du dañ ci moom labbayk allahuma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika lak kàddu googu mooy yàlla wuy si nañ la yàlla wuy si nañ la amul kenn ku ñu lay bokkaaleel yàlla wuy si nañ la mboolem cant yi ya ca gën a rafet yaa ci gën a ye ci yow la gën a yell ci yow la gën a yell xéewal ci yow la bàyyeekoo waaye boroom nguur amul kenn kuñ lay bokkaaleel xoolal kàddu yooyu nit ki di ko wax xam li muy wax ak màggaay muy wax fi mu toll loolu bu dëggoo ci moom su fa jegee it euh, maggaay googu kàddu yi bàyyi ci moom ak lim ko bàyyi xel ak lim ko wax war na am lu def ci moom mbokk yi loolu euh, bokk na ci li nga xam ne aj màkka da koy jëmmal moo tax ña jiitu daan nañ aj màkka muy ceddu ga waaye dañ daan dañ daan bokkaale sharia ñëw indi aj màkka ko tax a jóg yépp commencement gi ba fin gi mooy aj màkka gu safaanoog aj màkka waa ceddu gañ doon def mooy seenu aj màkka bokkaale ko la lool sharia indi aj màkka goo xam ne lépp tawxid moo ko lal ñoom dañ daan aj màkka di wax ni yàlla amul kenn ku ñu lay bokkaaleel lu dul bokkaale buñ lay bokkaaleel te bokkaale googu wala kiñ lay bokkaaleel ko euh, yelloo nañu bokkaale la ak moom ndaxte yow yaay ki nga xam ne yaako moom te moom moomu la kàddu googu nekk kàddu goo xam ne safaanoona ak li nga xam ne mooy li tax a jóg tawxiid mbokk yi ci mbooleem place nit kiy taxaw ci aj màkke ji moo xam ci kaaba gi la ci néegu yàlla bi fi muy tawaafee safa ak marwa la fa muy sàndeeg jamra la mina la wala muzdalifa fu mu ci taxaw jaam bi dafa yëg ak toroxlu ci kanamu borom bi ak suufe yég ne yàlla màgg summeeku desewul dara lépp luñ ñaw day génn ci yaramam su ko defee day taraxlaayu woddoo sër euh, loolu lay nekkee du yëg dara ci ak solo gu am waaye ak suufe ak doyadi ak wàcc ci kanamu borom subhaanahu wa taala loolu lay yëg su ko defee euh, di wéetal yàlla di ko topp ci mboolem li ko yàlla sant ci aj màkka gi mu respecté ni ko yàlla sante loolu di jëmmalaat ci moom Euh, koo xam ni dafa tàggatu na ci biir aj màkka gi di respecte ndigalal yàlla ak yonentam waaye di roy yonent bi alayhi salaatu salaam ci mbooleem bërëb bu mu taxaw la muy def na ko yonent bi alayhi salaatu salaam defee woon la koy mu doon beneen tàggat ci boppam ci roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam su defee loolu euh, day jëmmal li nga xam ni mooy ak topp ak nangulam yàlla ak yonentam su ko defee mu wat boppam na ko yonent bi alayhi salaatu salaam jàngale rendi ni yonent bi alayhi salaam jàngale rendi su fekkee war naa rendi dox fu mu war a dox taxaw fu mu war a taxaw ñaan fu mu war a ñaan yëg ne mboolem aj màkka gi dafa am koo xam ni njàngalem lay topp mu njàngaleem yàlla ak yonantam keneen amul ci moom soxna su ko defee loolu nit ki bu fa jógee loola dafa war a nekk luy continuer parce que ab yar formation bu mu jaar ba génn ci la loolu war a loolu mooy njëriñu aj màkka njëriñ loo xam dana ko def ci li nga xam ne moom mooy jaam bi jamono yi nga xamee ne mi ngi koy def ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala ci turam yu màgg ci ngëneelam ci màggaayam ci yërmandeem mu yombalal ñu li nga xam ne mooy aj néegam boobu gannaaw bu ñu ko yombalee ñu aj mu daal di ñu koy daal di ñu koy nangul allahumma arzuqna na baytik allahumma arzuqna hajja baytik allahumma arzuqna hajja baytik ووفقنا لما تحب وترضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله